Euh, il faut revenir sur le caractère du remaniement euh, man dama jàpp ni que c'est un non-événement. Ah oui. euh, parce que nekk ci réew bi nga xam ne lépp urgence la lépp tout est urgence démb maa ngi seetaan déjà sur le plateau euh, kii nga xam ne mooy sunu naataango Oumy Ndour fii ci plateau bi ñuy dalal ko fi. ci mhm. mbirum justement cette hausse incompré incompréhensible de des des factures d'électricité des coûts de l'électricité te loolu <laughs> yemul ci électricité Senelec rek ah il faut s'attendre à ce que ndox mi seen o xaw mun la tudd <laughs> déjà ñoom ñoo ci jiitu sax euh, kii nga xam ne mooy Senelec ak yeneen nag ki yeneen mhm. euh, gis nañu secteur hôpitaux yi gis nañu secteur éducation bi école yi di waaj ubbi gis nañu secteur université yi c'est-à-dire maanaam en quelque sorte tout est urgence dans ce pays alors c'est dans ce cadre nañ naan à ah, six mois cinq mois de la présidentielle ñu ngi tas gouvernement de reconduire kii nga xam ne mooy candidat wu le parti au pouvoir la coalition au pouvoir mm-hmm. Mm-hmm. seen candidat à la présidentielle ñu ñëw jël ko reconduire ko au poste de premier ministre mm-hmm, tey ñu ne dañuy tegal dañuy tegaat gouvernement bu bees mais damay fàttali ni que bi ñuy teg le gouvernement bi nga xam ne kii di du baax Euh, nañ fi neme moom nañ neme woon premier ministre dañ ne woon c'est un gouvernement de combat. Mhm. gouvernement de combat boobu boo ak léegi ba tey jii bañ koy tas gis ñu ban combat la gagné bu dul jël benn opposant dugal ko ci kaso bi bu weesoo combat boobu gagné wuñu benn combat parce que tey la nit ñi gën a sonn la preuve y a des milliers de sénégalais yi nga xam ne chaque jour ñu ngi nii jël gaal wala jël désert. wala jël avion uti ji bitim réew c'est-à-dire mhm. que kenn bëggatul toog ci dëkk bi mhm. loolu mooy problème mooy déjà un peu les faits sur ce gouvernement là léegi nag le retard comme ñoom jàpp ñu dama jàpp ne que ñoom jàpp ñu ni que les sénégalais sont dans l'urgence mhm. donc ñoom mënuñu def lu urgent te boo gisee gouvernement bi tamit boo ak léegi sa tarde à être mis sur la place publique mooy que ay calcul li ma doon wax keroog ci keppaar gi mooy que la nar dund mooy gouvernement bi ñu nar a indil. Mhm. mooy gouvernement bi nga xam ne lii sénégalais yi dund ci métit pendant douze ans. gouvernement bi moo war a ñëw nag serré définitivement mooy le dernier clou li ñu naan le dernier clou du cercueil gouvernement bi moo nar a ñëw dóor ko ah ah, waaw xam nga ndax lan dañ nekk ci période pré électoral oui bi ñu gé bii génn nii dañu woon bu combat la mhm. combat bi mënewul indiwul dara taxul dund gi wàññeeku taxul faju gi yog yomb taxul taxul taxul gouvernement bi nag dafa war a doon gouvernement ba nga xam ne day dem campagne électorale waxuma day liggéey pour fal candidat ma waxuma loolu de gouvernement buy dem campagne électorale gouvernement buy dem campagne électorale nag day soxla koppar maanaam gouvernement bii nar a ñëwul lii nga xam ne moom nañu war a voté ci fan yu néew lancer le marathon budgétaire muñ mhm. ko voté ba pare dama ne li ci ëpp ci koppar googu ñii nga xam ne nañu war a fal ay ministre yaakaarewuñu fenn xaalis pour campagne yi fudul foofu moo tax ma ne la lii ñu nar a dund ak ce nouveau gouvernement la ça va être pire que ce que les Sénégalais ont vécu ces onze dernières années mais Moussa su ma déggee euh, Pape Sané li mu wax mais ma yaakaar ne gouvernement également koo xamante ne bëgg a falu mu wax ko période préélectorale da ngay def des résultats palpables sur le terrain c'est-à-dire euh, euh, alléger la souffrance des Sénégalais alléger le panier de la ménagère et autres pour ñu mën la fal xam ne kii kat lii xeeñ suñ ko joxee dina neex mais boo waxee ne gouvernement bi c'est pour rassembler des fonds pour aller en campagne électorale. c'est li nga wax c'est ce qui est normal loolu moom moo waroon na nekk la démarche normale d'un gouvernement parce que en fait am na noo xamante ne boo ko mënee sa magistère Euh, on n'a pas même besoin di di di tourner yenn campagne yi say résultats ñoom ñoo lay campagnal mais boo xoolee campagne ni muy doxee Sénégal de 1960 jusqu'à nos jours di nga xam ne effectivement il ne s'agit pas de ñëw ci Sénégalais yi ne leen renouveler leen ma confiance par rapport à lii ma liggéey déedéet dañuy xiifal askan wi ba euh, mbir mi des yi weer ñu jël seen ay saaku ceeb ak seen i bidon diwlin di wasaare c'est ça la réalité au Sénégal alors euh, ces quatre jours ñu toog sans gouvernement ça veut dire qu'on peut qu'on pouvait même se passer d'un gouvernement ah ouais ban différence la am quatre jours yi ak li nga dund depuis euh, aucune différence donc ça veut dire que les gouvernements que nous avons nous servent à rien du tout parce que nekkuñu fi les choses sont toujours comme ça ni mu mel la mel gouvernement de combat oui mais ils ont mené juste un combat pour essayer de liquider un adversaire politique amul leneen et même parfois sax da ngay gis ne nomination yi c'est tributaire de l'acharnement mm-hmm. parfois euh, de contre mm. Ousmane Sonko ñoom ci seen jëmu bopp noonu la dangay da ngay gis euh, pour pour pour espérer une promotion une nomination un décret mais il faut être euh, radical il faut nga yàq deru Ousmane Sonko il faut nga euh, dem ñoo xamante ne voilà on a vu euh, certaines déclarations donc kon loolu noonu lan la ñu servir à. donc comme euh, de combat contre un adversaire cette fois mooy doggali kon combat doggali. mais bi ñuy voté budget bi lan la ñu waxoon année sociale. vous avez vu les factures d'électricité gis nga xale yi di bëkk di génn. Mhm. waaw maintenant où est l'aspect social de ce qu'on nous disait à l'époque y en a pas donc kon effectivement gouvernement oui mais ça ne changera rien du tout par rapport ak ce que nous vivons jusqu'à présent te tey jii nii effectivement Pape Sané a raison au-delà de euh, rassembler des fonds mais on aura un gouvernement typiquement politique version Amadou Ba parce que je pense et que ni man dans mon intime conviction que Amadou Ba c'est le président de la République euh, Macky Sall c'est un résident de la République jox na ko la ngay. d'accord dinañu xool ndax gouvernement boobu également Amadou continuer nekk premier ministre qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que ça va augurer également pour lui mais tey jii Mohamed euh, déjà ça tarde Pape Moussa nee na on pouvait s'en passer est-ce que vous partagez cet avis-là. waaw ah, on pouvait s'en passer parce que bu ñu seetee gouvernement objectif am mooy coordonner l' action du des, des ministres par exemple le premier ministre moom day coordonner l' action du gouvernement léegi action du gouvernement dafa am fu mu jëm ci wàllu koom ci wàllu dundin ci wàllu lekk ci wàllu naan ci wàllu faju bu ñu seetee depuis que ñu teg gouvernement bi dama koy tënk ci ñetti pàcc gouvernement de combat gouvernement de campagne ak gouvernement de positionnement gouvernement de combat combat contre quoi non contre la vie chère non pas contre euh, mbënd mi l'immigra du moins l'immigration irrégulière mm -hmm. et cetera et cetera non pas contre le chômage mais c'est un gouvernement contre des adversaires politiques voilà parce que ñu ngi wax ne liquider un opposant politique mais ils veulent liquider un ensemble d'opposants politiques parce que boo seetee xam naa dinañ ci ñëw après euh, ñu ngi dox di dem ci sénégalais yi di jéem a waxtaan ak ñoom pour parrainage dinañ ci ñëw mhm. ñu ngi ñuy empêché ñu toog dem wax ak sénégalais yi donc c'est un gouvernement contre toute personne bu ñu xalaat ne war na mën a remplacer le président Macky Sall gouvernement de campagne parce que ñu ngi waajal campagne électorale élection présidentielle li ci des bëreetul léegi ñoom nan la ñuy def dañuy xool non pas kan moo gën a maîtriser les dossiers mais kan moo gën a am positionnement wala kan moo gën a am électorat ñu jëm ko jéem ko tabb bu ko defee le prix le ni mu tudd seen candidat Amadou Ba mu jéem a am doole côté bu mu dëkk beneen bi mooy gouvernement de positionnement parce que kenn ku nekk day jéem a pour préparer les échéances à venir donc noonu lañ ko mën tënkee mais bu fekkee ne gouvernement objectif mooy régler le problème des Sénégalais donc on pouvait s'en passer parce que depuis lors gisuñu dara. Mhm. d'accord tey jii cette lenteur là yow lan nga koy assimiler Mohamed. du moins la souffrance des Sénégalais parce que les Sénégalais ils souffrent. Mhm. ci boor boo jël nag ku feebar du faju ku xiif du lekk ku bëgg liggéey du liggéey nangam ak bu ñu ko doon lim du jeex. mais tey booy teg gouvernement c'est pour mu régler problème yooyu mais problème yooyu ba léegi dama ne bi ñu tegee Amadou Ba ba léegi dafa mel ni problème yooyu dafa gën a yokk. Mhm. d'ailleurs ñu sentiru ni ñu sax am nañu un premier ministre bu tudd Amadou Ba dafa mel ni day y a président de la république bu ñëw teg ko lu mu ko wax mu ne waaw donc gisuñu dara loo xam ne coordonné na ko gisuñu dara loo xam ne Amadou Ba bi ñu ko tegee ba léegi faj na ko. ci mhm. Sénégalais yi. d' accord euh, la même question qui revient bi ma doon laajte Moussa avant ñuy daaneel ne ko dinañ ci ñëw tey jii. ñu samp gouvernement boo xamante ne Amadou Ba le candidat moom moo koy waat euh, Moussa mi ngi wax euh, gouvernement de campagne électorale yow nga ne gouvernement également électoral tey jii lan na doon bénéfice ci Amadou Ba ci gouvernement nga xamante ne moom la ñuy teg. bon moi j'aurais préféré nga gën ma nga njëkk ma laaj lan mooy bénéfice lan mooy mooy doon bénéfice population yi dans ce gouvernement. ah non yéen kañ wax ngeen ko pare comme que <laughs> urgence yëpp ñoom teg ah, fële. il y a beaucoup de sénégalais même qui s'interrogent sur les commentaires est-ce qu'on doit faire un débat même sur cet attelage gouvernemental là c'est vrai euh, mais comme actualité oblige il faut qu'on en parle. Mm. mais c'est vrai que l'avantage bu dee avantage daan na am ça dépend la wax. ci moom bu dee moom jël na ay responsabilités am comme premier ministre candidat ou bien candidat déclaré à la présidentielle de benn Bokk Yaakaar bu dee ah. jël na ay responsabilités am ci attelage bi man samay nit diw ak diw ak diw il faut ñu bokk ci mooy benn loolu mun na ci am un avantage mun na ci am un gain politique mais bu dee comme na mu amee woon la woon ñi koy nettalee noonu parce que fekkewuñu ko ni que ñii nekkoon ci gouvernement de combat bi daanaka moom euh, amu ci woon benn Euh, choix maanaam amu ci woon benn sañ-sañ mooy tànnu ci kenn. dañ ko imposer woon dañ ko imposer mais bii lii ci avantage am mooy moom mu mun a tànn. c'est lui qui décide. waaw man waaw mu mu mën laa wax mooy kii nga xam ne mooy président la république en quelque sorte euh, kii nga xam ne tey jii jàpp nañu. Euh, jusqu'à preuve du contraire ni que mooy probablement le directeur de campagne de Amadou Ba mu décidé ni ko waaw léegi yow indi say nit boobaa mun na ci am un gain cest à gain bi nag mooy lan mooy dana am ay nit ñi nga xam ne daañu mouiller le maillot xeex pour moom mais ba léegi san régle règle pas problème lii régle le problème wax nga ko sànq sa biir question mooy que ñii nga xam ne nga fas yéene jiite ëllëg il faut nga wax leen wala nga wan leen. Mm. lii tax suba bu ñu duggee fee ci mbañ gàcc mun a ñëw jël seen carte votel la mais du question. jël nga am nga un gouvernement de cinquante ministres ou quarante ministres jënd leen ay 4x4 yu bees sax ay Mercedes yu bees euh, non non ça ce pas de ce pas ça c'est il s'agit pas de ça le Sénégalais soxla Sénégalais li ñu soxla actuellement c'est quelqu'un qui porte un discours quelqu'un qui rassure et quelqu'un nga xam ne leer na leen ni que kii bu ëllëgee lii dinañu ko indil mais quelque soit je dis le nombre de ministres yi nga xam ne moom mun na ko am quel que les priorités quelles que soient les les les les les les les moyens yi nga xam ne moom lay dégager tant que jëluñu en compte les urgences et les mm-hmm. préoccupations des Sénégalais mm-hmm. c'est comme lii fi jotoon xew ci douze ans yi mooy des gouvernements yi nga xam ne bu ñu leen falee rek jour bi ñu leen di fal dañuy bàyyi di toppatoo soxla nit ñi nekk ci seen soxla waaw bu dee nag bu dee laa wax ci genre gouvernement yooyu nañ nar a dugg. mooy maanaam ay nit ñi nga xam ne dañ leen di fal pour ñoom seen soxla maanaam mun a gaaw defaru ci six mois yi am ci terrain am ci kër. et am ci compte bu duun a duun a duun ah ben j'ai dit que Amadou Ba <laughs> yërëm naa ko de waaw. Amadou Ba moo jaree yërëm tey jii mu saawale askanub Sénégal mais dañu wax gouvernement de combat mais gouvernement bi de combat bi de 2021 à nos jours dafa am ay post stratégiques yoo xamante ne également dañ fa taxawoon est-ce que yaakaar nga ne ils viennent de terminer leur bulo dañ leen fay yëkkati mën nañu lim trois ministères yoo xamante ne intérieur ministère de la justice mën nañ tudd également ministère de la défense bon euh, intérieur euh, ak justice depuis lors euh, ça a été dirigé par ñoo xamante ne mosuñoo participer ci combat démocratique wu réew mi amul kenn ko mës a gis mu wàcce ci mbedd mi taxaw pour mener un combat démocratique ci ñoom ñaar ñëpp. Mhm. c'est pourquoi tey jii nii euh, boo mënee benn combat tu eu tant de mal à conquérir. boo ko jotee da koy jot ceeb looloo tax euh, je pense euh, dafa mel ni il foule au pieds les règles les plus élémentaires de la démocratie notamment de la justice c'est ça la réalité ci euh, ñaar ñooñu noonu mais bon électoralement peut-être ça ne compte pas te actuellement fii ñu toll nii man je suis formel c'est Amadou Ba qui va mooy gouvernement am la il a procédé même à à à des à auditions lui-même donc kon Amadou Ba moom mooy nommé nee naa fi mu toll nii yàkkal nañ ko réew mi euh, Mohamed mu ngi wax que ni il n'avait pas les coups de France jusque là effectivement mais à partir de là il en aura. kon euh, li ñu doon wax euh, quota de du président quota d'un mm. tel d'un tel. Mm. tey bii pas amul c'est Amadou Ba qui a les pleins pouvoirs. Euh, qui a les coups de franche parce que moom mooy dem au combat mais ban combat boo boo boo xoolee tey jii nii effectivement Pape Sané mi ngi ne du dunu jug ci soxla askan wi je relativise danañ ko def mais pas de manière structurelle. maanaam pour régler problème yi de manière définitive euh, wala à long terme mais de manière conjoncturelle maanaam askan bi kenn day ñëw ne la soxla naa nangam diñ koy génne def ko ci ñoom lay jógee de waaw ñoom ñoom ñoom ñooy c'est l'argent du contribuable bu ñu euh, dugal seen i poche wala seen i biir après voilà fi mu toll nii ku yuuxu ñu jug taxaw parce que on est à mois de ces élections askan bi nag moom war a a comprendre est-ce que day takk biiram ci 4 mois yooyu noonu et régler les problèmes yi nga xamante ne les tares qui gangrènent le tissu social yi nga xamante ne actuellement euh, sénégalais bu nekk mu ngi koy dund ñu régler ko nag maintenant à long terme les cinq prochaines années. mais, mais euh, obligatoirement euh, Amadou Ba avec les coups de franche ministre yi nga xamante ne ñoom la nar a àndal euh, je bu doon bu doon li nga xamante ne moom la Sénégal di ñaan intérieur ak justice ñu jox ko ñoo xamante ne ils n'ont aucune coloration politique. mais vous avez vu ce qui s'est passé dans l'administration de la justice c'est le ministre qui dit que nangam xëy suba weddi waat ko mm. ainsi de suite donc kon effectivement euh, man jeune je n'attends rien comme euh, ay euh, solution euh, structurelle xaaruma ci ñoom dara mm. gouvernement bu mu mënti doon quelle que soit la technocratie des uns et des autres li jug ci bii bi rek moom mooy c'est tributaire ce gouvernement là n'a qu'un seul objectif faire élire Amadou Ba exercice très pénible d'ailleurs parce que bu ñu l'option des parrainages mu war a dem euh, citoyen je pense que ni ça aura beaucoup de difficultés. Mm-hmm. Euh, tey euh, Mohamed ni ko Moussa waxee tey jii. li ñuy nar jublu moom moo di ne jël seen poste duy ko xaalis fu askan wi jooyee ñu dem taxaw ko mais tey est-ce qu'on va pas dire que ni politiciens yi ñu am amatuñu lecture ci askan wi est-ce que les populations ne sont pas en avance ndax dem nañ fa ay élections yu dul benn di ñaaw ñu naan kii mooy l'argentier joxe seen xaalis te fa ñu nekk ñu dóor leen fa. waaw mooy li ñuy wax rek xam nga bu bu ma ne gouvernement de campagne xam nga campagne électorale Sénégal dañu tàmm gis un tàmm ñëw duuf jël poosam yi def ci mm-hmm. xaalis lépp loo xamante ne askan bi réclamé na ko rek wala soxla